mbokk yi xale bu jigéen bi ngeen di gis mu ngi tudd jàbba yaayam tudd Isa juuf dafa amoon damm-damm ci loxo bi yaayam yóbbu ko ci hôpital yi ñu doon ko faj mais dafa mel ne saafara sujur jàngoro la xale bi daaw ba la feebaroon damm daa daanu ci baaj léegi bi moom ñu indi ko hôpitalu jànnatu léegi ñoo ko doon faj waaye faj mi daal moom xam naa ni ba tey baaxul ndax loxo bi day génne dët te neewaay bi de dafa neewi woon ba toll ni ab si woo pot ndox kii at loxo bi àttanu ko woon sax dañ ko daa yëkkati loxo bi waaye nag bu ñu demee jànnatu dañ koo xotti mees ko dañ koo xotti mees ko opéré wuñ ko dañ koo xotti mees ko ba ñoo dem nag fi ne ba xam ne weer wi daaw tembe la loxo bi day génne dët te neewaay bi de dañ fi ne nii ñu ngi bindal ordonnance yoo xam ne ay juróom benni junni lay doon jënd nañ ci lu war a tolloog juróom benni ordonnance waaye toog fi ne nii fa amatuñ ko dara luñ mën a jënd jànnatu moom ñàkk nañ fa xaalis waaye dara fi ne jeexal nañ tàkk lu yoroon jaay nañ ko bu dee xara jaay nañ ko bu dee bayee jaay nañ ko yoratuñ dara. bàyyi moom noonu fi ne daanaka luñ lekk sax bay boo ma ne amatuñ ko di sàkku ci mbokk jullit yi ak taal bi kuy def ngir yàlla dimbali ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Tuubaa mbokk yi dégg ngeen way juróom wu jigéen woowu kàddu yi mu yëkkati ñu ngi sàkku ndimbal nag ngir opéré waat loxob tuut tànk bii di jàbba ngir sama borom defal ko ak wér kon képp ku ci mën a jàpp rek mën ngaa woote ci numéro yooyu